ndànk lan la ñaari weer ndax conseil constitutionnel dafa sa carte gi yëpp gis erreur yi mu def ñi ñi spolier ñii seeni clé kenn mënu koo xool doublon yi nekk ñu war fee génne doublon yi dof yi kon pour ñu defaraat élection yi tëggaat ko defaraat ko jekk-jekkal ko ci ñaari weer presque rek yoo xam ne président day toogaat rek pour mu jeex mu dem ñu ñaan ko mu toog jarul ay mbëkk ay yuuxu ay bëgg a taal dëkk bi xanaa ñooñu bëgguñu Sénégal nag.